bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa taala wa barakaatu mbokki daara ji ñoo ngi leen di nuyu bu baax te di leen ziyaar xam naa ne lu aju ci wàllu mbind yi nga xam ne daana fi aw te sëriñ bi daan ko fi jàngale waaye xëy na ñu dem ba mu yàgg ngànt dikkal ko ci mbokki jullit yi daa mel ni ñu bëri yittewoo nañ ko lool kon ñu fas yéene cee ubbiwaat benn bunt rek ngir tàmbali ci doonte danañ ci lott lool waaye nag ñu jéem cee doxe rek tàmbalee ci am xel ba xam mu muy wéy incha allah mooy sunu mbokk yi nga xam ne dañuy bëgg di topp dars yi di man di xoolal seen bopp téere yi di xam fi ñu toll di ko ànd ak ñun waaye yàlla natt nattoo leen ñu ijji te loolu xam nga ne gàllankoor la ci ñoom kon nag bisimilah ñu tàmbali waat loolu fas yéene dimbalanteeg mbokk yi fexe ba ñëpp fer ijji incha allahu taala niñ koy defee rek mooy bisu set rek indi ay quelque waxal la ko boo defee yow mi ñuy topp nga fexe ba xam araf yooyu buñ ci wax nga xam ko xàmmee ko bind ko denc ko incha allah da nga yor sa cahier ak sa bic luñ jël rek nga fexe ba xam ko xàmmee ko bind ko denc incha allah bu ko defee tey ci bismillahi la ñuy tàmbalee waaye dañ koy jàng rek par araf kay kon nga seet fii ma teg big bi mooy bi xam nga ne alif gi taxaw ci kaw tomb bi tiim ko moom lañ jànge woon baa ba ngay jàng araf yi léegi nag buñ ko maasee te fekk na dañ ko maasee ci suuf bi ngay jàng da nga bi ok ko nga jàll ci siin si gis nga ñu ko maas ko nga jàng as jàll ci miim gi gis ñu maas ko yet ci suuf nga ne mi jàll ci laam gi gis ñu maas ko maas ko sidda nga njëkk a jàng ne àll àll Eh, nga gisaat ñu maas ci kaw nga ne laa nga ñëw ni hi ci asaaxeer bi gis nga ñu maas ci suuf nga ne hi kon loolu mooy njàng mi ñu demaat bi as mi àll laa hi bi as mi àll laa hi kon loolu mooy njàng bi incha allah xam naa ñi koy bàyyi xel ñu ngi leen ciy diglu bu fekkee ne am nañ ci yeneen xalaat ak yeneen anami doxalin yu gën a jàppandi wii bu ko defee incha allah taala